ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ziar leen ñu ñëw xeen ci xabaar bu tiis bi le mu ngi amee fii ci bu Podor fu soriwul dara ak njëm askida boo xamante ni am na fii ci suba gi le nga xamante ni nag ay xale ñooy jóg di dem di jàng ji fale ca euh, Tuldigaale lycée bi fu nekk ñu ngi jógee nag ci dëkk bu tudd euh, Dubaange Dubaange foofu nag soriwul dara ak Tuldigaale foofu la xale yi di jànge bu ñuy dem ci pegg tali bi la ñuy jaar am na oto boo xamante ni dafa ñëw ba seen wet ponam toj mujj dal ci kaw xale yi bilaa bi na lool a ñàkk am na ñoo xamante ni nag am na ay gaañu gaañu ñu ngi leen rawale fale ci hôpital bu njum waajëri bi ñu déggee déggee xabaar bi nge nga xamante ni xabaar bu tiis bi dem nañu wutali fale ci hôpital bu njum ngir xooli ay xale ñi nga xamante ni ñoo ñett jot ñàkk seen bakkan am nañ ay gaañu gaañu mu nekk xabaar boo xamante tiis na lool askanu euh, département de Podor yeewoo ko mu nekk xabaar bu tiis euh, ñu ngi ñaan yàlla euh, yàlla suñu borom xaare ñi nga xamante ni ñoo jot a ñàkk seen bakkan aljanna yi fiir taw